fukki fan ak juróom ñent ci wéru décembre ci atum 2019 ENDA ECOPOP jël baaraamu sargal joxoon ñi ko commune bu Ndiakhène commune bu Ndiakhène nekk ci département bu Tivaouane maire ba Moustapha Sène di wax né liggéey bi metti woon na waaye te mbégte bi yatuna na. téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn commune ak département ñom ñoo postulé won ñu sédélé ko nak 6 catégories ñun catégorie bi ñu postulé won moy engagement et participation des citoyens et des communautés. maanaam fexe lépp loo xam ne ñu ngi koy doxal ñu boole ci askan wi ca nas ba askan wi bokk ci ni koy nase xalaat ba doxaliin wa askan wi bokk ci euh, vulgarisation doxaliin wi bokk ci résultat ba également mu mën a tas ci askan wi ci loolu la ñuy nag présenté expérience bi ñu présenté woon mooy projet UCAD rural projet la boo xam ne université dañu signé ak ñoom coopération en relation cadre de coopération bi ñu ko signé ñaaxeen jox leen 30 hectares suuf ñoom ñu ne lépp lu ñuy jàngale ci mbay ak sàmm dañ ko bëgg génn université ñëw di ko jàngalee ñaaxeen ba tax na chaque année dañuy indi ñaaxeen ay étudiants ay chercheurs ak euh, ay professeurs ñoom ñu ñëw ñaaxeen euh, defee fi seen i mémoire wala seen i thèse wala seeni recherche première année ba ñoom ñu exploité 10 hectares bi ñu demee toll ci évaluation man en tant que maire ma ne leen man bëggoon naa ci projet bi ñu intégré ci groupement jigéen ñi ak groupement ndaw ñi loolu li muy jariñ mooy yéen seen xam-xam bi ngeen indi te nga xam ne ci kayit ngeen ko jànge war a ñëw jéem ko pratiquer ci terrain bi di ngeen fi fekk ñoo xam ne mbay rek la ñu xam ak sàmm ñoom la ñu xamee ci mbay ak sàmm ci ci ci ci xam nañ ko doon defee dana mën a compléter yéen seen xam-xam théorique boobu bi ngeen xamee ci big ak këyit bi ñu ko defee it wax dëgg yàlla ñoom ñu tànn fukki groupement ak juróom-ñaar yoo xam ne dañoo def ay fiche de renseignement gëstu groupement bu nekk nu mu tëddee nu mu organiser woon na nuy fonctionner lan la liggéey et cetera ñu tànn ci juróom yoo xam ne ñoom la ñu intégré wax ne juróom yooyu bi ñu demee dañ leen di daggal parcelles yu ndaw ci biir 1 mètre lay doon sur 10 mètres euh, université mooy indi jiwu université mooy indi ndox parce que en relation avec l'ANIDA tabax nañ fa forage boo xam ne projet bi rek moo ko tax a jóg donc jigéen ñi dañ leen wax rek ñoom ñu ñëw liggéey lu ñu liggéey it ñoom ñoo ko moom waaye duñu leen jox xaalis bi ñu yóbbu dañuy wax ne dañu koy téye bis bu ñu demee nag ba nga xam ne ñoom am nañ loo xam ne mën nañ ci wut beneen ñu accompagner leen delloo leen ci dëkk installé leen fa périmètre yu mel noonu nga xam ne groupement bi moo koy moom. ñaaxeen nekki dëkk bu nga xam ne dafa ràññiku lool ci wàllum jàng jàngum nasaraan rawati bopp daara. bi ñuy door a toog dañu waxoon ne ñun kat ñett mooy doon suñu priorité waaye bi ci jiitu mooy éducation ndax damay faral di wax ne nit ki lu mu lu mu wér wér wér wér lu mu am am am alal su amul xam-xam du mën a def dara. kon jang nañu jangal nit ñi bañu xam ñu tollu ci jang nañu leen jangal ñu tollu ci lifantuñu lifantu ñu tollu ci alphabétisation ñu defal leen alphabétisation kon jang mi mo non suñu priorité suñu concentré suñu yépp nak liñu ñu lépp ci digënté bobu wax daal luñu mën ci jappalé jappalé nañu leen ko waaye nak résultat yi am nañ ko ndax ci département tiwawan 2015 ba tay gi ni ba 2019 résultat examen yuñ fi def ci école élémentaire commune ñaxel mo ci jitu ci département tiwawan mën ngeen ko vérifier à partir de l'inspection de l'éducation de la formation tiwawan Euh, ci 2019 dans ci région de Thiès commune Niakhène mo jël troisième ci école élémentaire té li troisième ñaar ñi ko école privée ku école privée ëpp ay moyens résultat école également ci daara yi ndax ñun résultats il faut luñu école français ñu ko daara yi système ku ñu wax ne kii ndongo daara la wala ci daara la génne wala jaar na ci daara du bokk comportement ak keneen ku bokk ku jaarul ci daara. jotaay bi lakk waraloon weesuwul wattum budget commune bi wax ne namm na wuti téeméeri million ak juróom-benn ak bi Moustapha Sylla di leeral ne xëy na mu jafe lool. ci budget bi budget bi bu commune mi ngi toll ci téeméeri million ak juróom-benn yu tegal tuuti waaye téeméeri million ak juróom-benn yooyu. li ci ëpp nak wax dëgg yalla état bi mo ñu koy jox ci état lañ koy yaakaaré waaw ndax ñaaxeen amul ay ressources toujours ma diko wax amuñu géej amuñu usine amuñu dara li ñu am rek moy IMF impôt minimum fiscal moy remplacer taxe rurale ku nekk xam na ne baykat yi amuñu ay ay ay ay ressources yu yu xaw a bari ba bi ñuy tek ñun taux yi ñu doon fayiku sax bi ci gëna bari 2400 la bi ci gëna a tuuti 600 francs donc dañu jël IMF bi 5 tranches les deux dernières tranches Le chef de carré bi rek 2400 yenen contribuable 600 francs la fay 600 francs nga 4 budget bi ci def bu ñëpp impôt xayna 4 800 4 millions 800 106 millions kon xam nga fonds de concours fonds de dotation ak sel bi contribution économique locale euh, bu euh, nous avons nak dañ koy en dépenses euh, d'investissement et ak dépenses de fonctionnement li ci ëpp dépenses de fonctionnement c'est avons 65 du budget bi dépenses de fonctionnement Mais nous avons corrigé. corriger cette année jël nañ ci excédent de fonctionnement yi jël 7 millions nous ko ci investissement Madame, li ñu comme celle bi bi 2019 ah, au mois de novembre 2019 nous avons dépensé Ce li ci desoon dañ excédent de fonctionnement la nañ investissement. ay doom mu daaneel ko moom maire bi ci di sàkku nu gën leen a jàppale ci wàllum wér-gi-yaram. boo ñëwee ñaaxeen poste de santé bi bâtiment yi màggat na maternité bi également màggat na équipement yi amul ambulance commune u ñaaxeen yëpp amul ambulance bind nañ ministre de la santé digg nañu dig nañu ba tàyyi waaye ba léegi ak seegul euh, boo xoolee not bi mu bind urgence la wax mais ci suuf dafa wax ne bu kenn évacué ti ci lu dul ambulance mm-hmm.

dañu ci profité ci circulaire boobu fàttaliwaat nañ ñun kat demandé woon nañ ambulance dig nañu ñu ay at ba léegi accès gul ñëwoon na fii également def pause première cuillère euh, euh, maternité xawlu waaye boobu léegi février 2017 la woon waaye ba léegi tamit dara amaatagul